femme bi vraiment bi ñuy xamante moment boobu man j'étais très jeune dama nekkoon xale trop trop trop donc euh, moom mi ngi dëkkoon euh, Kër Mbay Fall doon liggéey euh, Grand Mbao ci biir ville bi donc yaay mi ngi dëkkoon Thiaroye Gare Samsam 2 Samsam 2 Samsam 3 entre foofu la dëkkoon man aussi maa ngi dëkkoon Thiaroye Gare dama liggéey ba wàcc jamono yi maa ngi liggéey Thiaroye Ramdan bi ma wàccee ay boobeer vingt heures dajé ci kaw raay bi nonu di dox di ñibi fofu lañ dal lañ amé rencontre waxtaan ainsi de suite ñu xamanté commencé une relation bu sëree légui nak ci biir lolu bo yalla dogal xam nga ëmb am ci bi si ëmb amé man c'est trop seen maman yooyu ma ma xamoon tiit nag quoi jaxaso trop trop sama yoon xé sama papa et puis sama tonton parce sama tonton surtout dafa xone metti maman dafa tàng légui sama copain bi mu né mo femme bi dafa ëmb mais c'est que yow li ngay def mooy da ngay dagaasi sa sa responsabilité sinon sa papa dina la créer ay problème te moment yooyu maa ngi doon préparé sama visa dugaloon naa pour préparer pour ñëw en Europe quoi. léegi ma ne garaawul comme noonu la demee boo ma des tamit ma raad dematuma seen kër mu toog lu yàgg ay trois mois mu ñëw kër ga fekk ma dem liggéey bi mu ñëwee mu fekk sama benn cousin ak sama copain bi mu toog waxtaan ak ñoom. ñoom gis ñu ko gisee automatiquement ñoo xam nañ ne gël bi dafa nekk en état de grossesse boo mu laaj leen ana li ñu ne ko sawaay de dafa dem liggéey mu toog après benn instant mu di ubbi sama album seetaan daal di jël benn photo nee bu ñëwee neen ko jël naa photo bi daal di dem bi ma ñëwee si ñoom ñu wax ma loolu hmm, ci si lendemain bi la lendemain bi xam ne dellusiwaat ma ne ko mais yow da nga jël sama benn photo mu ne ma si dama jël photo ma ne ko photo bi jox ma ko mu ne ma yow photo nga yow am lu gën a garaaw photo ma ne ko loolu lan la mu ne muy ëmbut trois jëm quatre moi ma ne ko ah waa de toute façon yow jox ma sama mu ne ma bi mi ngi mbaaw ñu ànd man ak moom sama ko bi dem mbaaw jël car rapide bi ñu demee mbaaw mu xool bagage bi foofu moom mi ngi doon liggéey ci ville mbaaw bi boo duggee mbaaw rek ci digg centre ville mbaaw bi kër gi mu doon liggéey mi ngi nekk à à droite noonu am ay fleur noonu quoi benn coquillage mu xool ne Fadel mi ngi ko bàyyi seen kër kër Mbaye Fall kër papaam ñu dem kër Mbaye ci côté armée yi foofu bi ñu demee foofu mu génn photo bi jox ma ma ne ko waa léegi xam nga comme noonu la demee yow bul ñëwati suñ kër. mu ne ma ah, mu ne quoi mu nekk femme bu am fulla mu ne amul problème dootuma ñëw seen kër sama tànk du fa tege nii lañ daal la affaire bi demee après ñu tàggoo mais takkee bi ma takkee soxna nag ba sama taaw judd nag ci laa commencé xam ne def naa erreur boo xam ne moom. gis xale bi rek moom moo ko mën a rattrapé. yaa ngi fàttaliku lii waaw sénégalais yaa ngi koy fàttaliku. Mhm. kii di wax nii mooy yaayu xale bi. kii mooy Soda Samb. moo jur xale bi. mooy xale bu jigéen mooy mooy mooy xale bu jigéen bi mu amal xale doom. voilà. waaw ñu déglu ko. waaw ñu déglu ko. moom nettali na. nettali na. Uh-huh. daja ba na mu demee woon. Uh-huh. la ca xew. Uh-huh. ëmb ba. après ëmb ba. xale ba màgg na am na fi nit nii presque vingt ans xuma vingt deux ans. ka xale ba. la xale bay dund. fa maanaam situation bu tar bi mu nekk. fi moom soxna si. waaw nettali na ko. nettali na ko maanaam waa ji doon wax. waaw moom ak soxna sii ñoo am doom. ñoo am doom. jox ma soxna si. te yaay Soda Samb. waaw ñi ngi xamante woon sam-sam léegi dañoo dajante woon rek mu woo ma ma ñëw xam nga mu imposé ma bëgg-bëggam te tamit comme li muy wax ni xale-xale moo ko jàpp peut-être may temps yooyu xale-xale moom a jàppoon xam nga rek ci jour bi ñu gisantee ma ak moom si lañ ànd dem këram. et bi ñu demee këram aussi am na entraîné ma présenté ma ay xaritam. deuxième fois bi tamit aussi bi ma demaatee fekkaat naa fa ay xaritam mais moom dafa ma xamaloon ni ma moom Aliou Ndiaye la tudd. moom Aliou Ndiaye la tudd moom Aliou la tudd. mais temps boobu sam-sam sama benn tante ma nga fa mais sama tante boobu sama magu yaay man sama yaay dafa gaañu xam nga léegi sama tante boobu moom dama fa daan dem des fois di jóge kër Mbay Fall di fa dem mais si diggante bi ma fa demee nag ci laa gisante ak moom li may wax nii bu nekkee euh, moom mi ngi dégg après dina xam bi muy ñëw dañoo ñëw laajte ma ni ma fii mooy kër Soda Samb ñu ne waa après ñu génn ñu ne ma kii yow lay seet mais bi ñu ne ma yow lay seet bëgg bañ naa sama mag bi xam ni mu demee ma génn mu ne ma voilà yow laa doon seet sama photo laa bëgg nga jox ma ko xam nga ma ne ko photo bi loo ciy jël loo koy soxlaa mu ne ma photo bi moom laa soxla man ko xamu ah, ne waa xam nga mu mu mu def affaire yi dëggal daal man ma kaf moom mu def dëgg bi ñu àndee ñu jël kalandoo dem Grand Mbao boobu maa ngi liggéey mu daal ma dem jël photo bi ñëw jox ko ko si la ni ma si la ma ni tànk bu bu ma ko gisati ma ne ko ah mu ne waa ma ne ko léegi amul problème mais l'essentiel yow am na lu gën am importance que photo boobu nga yor mais man foofu rek laa yemam moom parce que moom xaw ma woon ndax day tukki wala day voyage man maa ngi doon xaar rek pour action bi gën a kii ma dem fa gën a mën a pour ëmb bi gën a sori ma doog a dem teg ak waxtaan ak moom léegi bi ma demee ba ëmb bi xaw a sori après ma dem waxtaan ak moom bi ma demee si laa fekk benn grand man ko salaamaaleykum mu ne maaleykum salaam man ko ana Aliou Ndiaye xaw moo grand bi di la xaw ma grand bi da ko doon jàppale xaw ma daa xamoon action problème yooyu noonu daal ma laaj ko moom mu jox ma ni ma Tamsir Anne ma ne ko Tamsir mu ne waaw mu ne ko moom Aliou Ndiaye la ma wax nga ne Tamsir mu ne ma dala doon nax rek Tamsir Anne la tudd dala sànni man ko ah mu ne waaw man tamit ma ñëw ma ne ko léegi ana moom mu ne ma tuxu nañ nekkatu fi man ko ah mu ne waaw man tamit ma wëññeeku ak sama jaaxle jàpp si yàlla ñëw mais man bi ma ñëwee yàggul dara ma bàyyi grand mbaaw mais tërëwul sama biir bi nag boobu fesagul bu baax ma dem grand Yoff xaw ma naka laa koy waxee sama mag bi bi ma wàccee weekend sama doom mag bi ma ne ko waa man de am lu ma dal mu ne ma te xaw ma naka laa jàkkaarloog sa yaay wax ko ko mu ne ma xaa lu la dal man ko man de ndogal damaa ma ëmb bu faat sama mu tëb ni ma ëmb ma ne ko waa mu ne ma ay sooda man ko loolu de la xaw ma nag naka laa koy waxee dégg ah man ko waa man ko léegi xam nga nooy def mun naa man ko dangay bàyyi ba lundi ba ma xëy mun naa man ko su ma xëyee après léegi nga woo ko léegi soo ko woowee nga wax ko ko comme ça weekend bii di ñëw su ma wàccee moom dina ma woo. léegi weekend bi ñëw naka ma wàcc ma nuyu ko moom sama mag bi fayu ma ma dugg man ci sama pantare mu dema nekk naaj fanaan ma taxawaalu ba ëmb taxawaalu ba biir yaakaar ne fii nga koy juree waaye fii moom bu soobee yàlla doo ko fi juree fii doo ko fi juree te li may wax nii dina am ñu ko dégg dina boo ko tegee incha allah dina am ñoo xamante ni nii lépp ci seen kanam la. sama mag bi ñoo bokk benn ndey man ak moom ñoo bokk benn ndey mais dafa musul jël benn responsabilité ci man dafa mel ni man maay noonam daal. parce que lii nii dafa yàgg ci sama diggante ak moom. bi muy wax naan ma waa ba biir nga yaakaar man dinaa ko accepté. da ngay génn ca biti ma def caaxaan dugg ci pantre bi bay génnaat wax ji bari ji ma ne xaaral ma génn ba xolam sedd ma ñëw waxtaan ak moom fi ma génnee nag fekk naa mu préparé samay jox ko doomam bu jigéen doomam bu jigéen boobu kër mbay faa noonu mu daw ba ci digg ëtt bi mu mu sànni ma saag ba yëree tasaaroo ma di ko sëgg di ko far benn par benn benn par benn ma dem ba ci sama benn kër xarit ak yaayam ma ne ko man de mun naa man ko damaa ëmb génne kër ga mun ma génne ma ne ko waaw mun ma léegi nooy def ma ne ko man nag instant yi xaw ma naka laay def mu naa ma ne ko loolu nag mooy sama problème xam naa peut-être moom amul ku ko ci jàppale man tamit ma boole li ma neex ak li ma naqare dem jenn ku bokk ak sama yaay ndey ak baay waaw xam mbokk yëpp lan la doon daw ma nekk sama ëmb di muñ lu neex di muñ lu na ba yàlla dogal ma ma accouché waaw buñ ko fi arrêté sénégalais daal suñ waaw waaw waaw waaw moom kay na na Vincent bu ko fi dagg waay na yegg rek accouché yàlla dogal mu accouché mu accouché voilà bi mu accouché mu accouché ba pare lu topp léegi bi ma accouché nag sonnoon naa torop torop torop torop torop du ordonnance du supp bu may naan du yére yu may solal bébé bi barki alxuraanu kër gisuma baayam gisuma ku ma ko mën a nangul gisuma kenn te booba man moo kese laa ko séqal parce que man booba Touba laay doog jóge xaw ma affaire foo yooyu sax wax naa ko sax nee naa ko man de tàggoo na ak sama jëkkër te ma tàggoo sama jëkkër yow laa ci yow laa fi séqalaat lii sax wax naa ko ko. Mm-hmm. waaw moom bu fàttalikoo sax lii lii àgg naa ci ak sama mag bii nga xamante ne ñoo bokk benn ndey dégg laa musa am ci moom ndax man sama yaay bi may am trois mois la gaañu. Mm-hmm. sama mag bii dégg laa musa am ci moom ba ni ma amee. sama ndijaay boobu noonu ma àndaloon dem Colobane moo ko tudd ni ma noo bëgg ñu tuddee ko man ko tuddeel ma ko sama yaay comme dafa gaañu. ñu di ko wax nday aram. mais nday aram li ko gën a métti muy sama doom boobu li ko gën a gën a gën a métti ci àddunaam mooy comme xulóol rek tey mu ne ko yow mi nga xamante ne amoo baay affaire bi di metti ba ben instant muy tok ba nga école do xam lan lay jang mune ma man soo dama man bu may damay absent rek man ko ndax lan mune ma yeen saa dal man dal damay absent rek ma xam li ma xam rek nopi te parce que ma wax dara xam nga li ma la wax. dou lay laaj papa. ba koy laaj nem na ba ben instant way bi mako commencer la jagul nak mais amul won fitu jakarlo man dima ko laaj mais bi mako commencer ya-, laaj yagul ci la ne ma man da so da man amul ma sam papa la beug gis mom nan la mel sax mako expliquer nako ni la mel ak na la mel ah mané wa, mune mom nga ne tan si and tud tudd ko wa ah lol de lañ ma wax mune ah mané wa, mune wa man sama kay di may jang de pa lañ ma ci defal man ko joxum pa mune ma wa ma ko ah yalla baxna muy dem kan moko déclarer moy sama doomu mag bi ma lay wax ki nan moy yor responsabilité mom moko déclarer def ci kayitim yi pa mais lol daal la mu. joxum pa ji fu mu joxum pa ji sama jëkkër mak xana sama jëkkëru mag la jóge léegi yàlla dogal bi ma amee doom ma dem ba yor ko ñëw fii sonn xaw ma nan laay def ma dellusiwaat encore ci amigé yi bañ ma génnee fa ma duggoon ma dellusiwaat ci moom Kër Mbay Fall ma yor sama doom yor sama doom ba mu fer léegi bi mu feree nag ma bëgg a liggéey ji jiwaat ndax toog naa lu mat ñaari at presque liggéeyu ma yoru ma takku ma man mu metti torop sama ko daa naka mu fa am ay lu mat ñetti wër man tamit ma fexé ba ñibbiwaat ci kër ga xam nga su ma ñibbiwaatee du ma génn ma ñibbiwaat ci kër ga yalla dogal ñu nekkat ci kër ga nekkat ci kër ga nekkat ci kër ga bama gennat kër ga encore bama ba gennat kër ga jappat sama loxo dom yobale bama démé tay ba wara gis jëkkeur pour sey ma gis jëkkeur ñëw waxtane ko ak mom ni ko gis na jëkkeur mu ne ma commencé na ma lokay may ñaan may gu ñëk man ko ñaanuma ko dara mu ne man ko yor bu rafet mu ne man ko ndax lima talon lay bañ mu dalama te bëggante nañ man ak mom mu ne ko waa mu ne ma waa góor tey de moom bu ñu la yore te joxuñu la dara nangam ak nangam man ko waa lu ma ci fekk baax na ma ñëw waa koñ bi ci boppam ni ma carrément nday aram mi lim fiy daj ma ne ah, mun ma moo xale bi lii moo damm màgg ndax ay gaz lañ koy yen diggante bitig boon ma bitig ba muy koy yennoo ak diggante bi muy ñëwee sama sama xol bi jeex taat da koo sonal barke Seydina Mohamed ba pare yër korité bu ñëwee wala tabaski yërëm boo xam ne solatu ko moom lay daggal xale bi mu sol taala daal di ñëw jàpp noppam bi di ko kaata di ko kaata ma daal di boot sama doom ji topp ko topp ko topp ko ba ca kër ga ba ca saal ba ma ñëw fekk ko muy yëkkate xale bi di mbéj muy këpp ci kanaape bi muy yëkkate muy mbéj muy këpp ci canapé bi li may wax bu fekkee war naa la ci dara ndoy baan yàlla bu ma fekkee sama njariñu njaboot yaa ngi kii def loolu sàllal la sama doomu mag dafa bëgg kilifteer taala la tudd yaa ngi dégg bu baax li ma la wax dafa ñime kilifteer ba pare ñime ay sos ñime wax lu dëgg mu moom moom taala mu ni tërëwuñ ko dadul dem rajo gi muna naa man ko wa legi mom papam la bëgg gis muna naa man ko legi dama bëgg mu gis papam fekk ba avant loolu ma woko ko ko taal muna ko nday aram la bëgg andal àndal nee na danga koo tere mu ne neex man ko taala porté wolen plainte mo dafa dafa am doole parce que doole bi moy tay ben jour musna ma sama borom kër sama mag bi yëkkati ben këyit dan ma taala de këyit bi xuma lanu keleur xuma ki gëna mag ci pëlëkëlër xaritu ben bakkanam la ah. ma ne ah ne waa. day wax rek. barke Seydina Mohamed. non day wax da leen di napp rek. waa loolu nag fi mu toll nii. doo taala juru jurul xale bi. maanaam mag taala mag la ci xale bi. mag la ci xale bi. taala taala ngay wax. ak sa mag bu jigéen a ko jur. mag bu jigéen ko kon ni mu gis ni mu gis sa mag bu jigéen bi di jàppee sa doom bi rek moom it noonu la ko jàppee noonu la noonu la noonu la ko ciy jàppalee fi mu toll nii may waxee yow nii ba mu am portable dafa yàgg ma jël sama portable may ko mu tere ko portable te pourtant rakkam yi nga xamante ni ñoo bokk benn ña nga yor portable di def lu leen neex terewu leen ko moom sama dom bi ci boppam lañ xat fin na mu naa ah, man ko yaayee nga ne du dem radio, parce que bu demee rajo di nga dugg yow mu ne ma man dóor na ko ba utal ko fii loxo bi boo ko yow di nga luñ sos dëgg la ay cicatrices la ba ma ñëwee di ko laaj moom ku mag ki dama ko doon nëbb léegi sa xale bi wax ma ko ni ma taalaa ma doon dóor man ko dóor mu waa léegi sama mag bi doog a wax daani ma waaw moo ko doon dóor man ko lu mu def mu ne ah daa amul moyen ci jàng bi te sama doom sama doom bi nee na ma du loolu dañ doon tëgg ay sa ay xaw ma kankora ñoo fa jaaroon ñuy seetaan mu ne bu kenn dem man tamit ma yaakaar ne dem na ma dem seetaani ji ma ñëw ci la ma dóore ba def ma damaa bëgg tension da nga jàppale nday aram li muy dund ci kër gi moom rek moo ko xam kenn du ko tudd ci kër gi heure bu sama mag bi yaakaaree ni nday aram mi ngi wax ak man la nekkee nday aram heure bu yaakaaree ni nday aram mi ngi wax ak man rek li nga bëgg yow sa doom nga bëgg a récupérer man ko récupéré wu tamit lu tax moom ñëw nanguwuñ koo bàyyi moom biñu déggee lii ñoom ñoo ci am mbégte ñoom ñoo ci waroon a am kontaan dox ko sax man balaa ma koy yëg wala du dëgg. Uh-huh. ñoom ñoo ci waroon a am mbégte waaye pour lan ñu dima ci koñe naan ma du dem du dem du dem moo ma neex ay dima dima jaay doole. di mun a ma waaw dama lay jaay doole moo ma neex man ko yaa may jaay doole ma neex mun a ma ko waaye yàlla la ëpp doole. papa nday Aram moom. Euh, Aliou Ndiaye maa ngi koy sant di ko gërëm parce que tey li mu def mënoon na koo baña def bu ko neexoon tey dafa fekk ni deret dafa foor xëy na lim dem ba. doom dafa nekk loo xamante ni tamit lu neex si xol la xam nga li ma la surtout sa doom bi nga xamante ni moom nga njëkk a gis ci sa àdduna euh, d'accord naa tamit xëy na papa moo taxoon mu réassuré noonu man awuma problème jéggal naa ko loolu yëpp si xol bu sedd guruy mais li ma bëgg rek mooy jàppale doomam ñëw gis doomam jàppale ko aussi tamit situation yi ñu doon dund ak yëpp daal mu jàppale ci doomam doomam continuer njàngam ndax instant yi instant yi sonn na te ëppi perte na njàngam te bama ku ka woo ko lutax nga bàyyi sa jang da nan dara dara taxul ma bàyyi maa bëggatu bëggatu mais man mi yaayam ba ma ba bañ dëddale ma ak mom bañ demee ba ay nit yobal indi ko mu ak man si lama doga wax liko ko munuma li tax ma bàyyi jang mana munuma sante bi nga xamanteni leer na man ni santuma ko te tey jii fi mu toll nuyu ma nday aram rek nga may wax su ma no sante duma wax ndax xam ni suma ko xam ni sante bobu man santuñu ko ndax man seen kanam la juddoo lolu moma ma wa waaw nak lolu la laa bëgg mu ñëw jappalé ko te bu dina ko di bu fekkente ni ñoom nanguwuñ nday aram ñëw bu ñëwee na ma woo te dinaa fexe nu gisee ndey aram ne ko dina ko waaw te force bu ñëwee bu ñëwee bu ko bëggee récupérer tamit ba tey mu récupérer ko na ko bu ñëwee bu ko bëggee récupérer tamit na ko récupérer waaye ñoom seen sos yi ñuy sos naa bu ñëwee nañ ko ni moom daa maye woon nday aram nañ ko ni nii nañ ko ni naa waaw te barki alxuraanu karim loolu yëpp amul te dinaa la jox ay profil leer naa gis nga ba may dem ci Aliou Ndiaye damay dem di di di laaxani sama doom bàjjen boo xam ne yaayam ak sam papa ñoo bokk benn ndey moom laa àndal suur bi ñu xale bu góor bi di wax loolu moom témoin ya la xam nga foofu te mi ngi dund ba ci kër ñoom Aliou Ndiaye ñu dem ñu ne tuddul Aliou Ndiaye tam si may wax te ah, taala mu naan waaw damaa def samay samay porte plainte damaa def samay xawma lan ak lan ak lan loolu lu ci yoonam man maa doon man maa xam man ma man n'est-ce ko séqoon ak moom wala moom moo ko séqoon ak moom man lu dul jeex amul waaye damaa dund dund goo xamante ni ndax fi mu toll nii la ga dara gënul métti tey maa ngi nii sëy ak sama jëkkër ndax bañoon tey li ma daloon dal ma te tey fi ma dugg moo gën a yées ndax am na maa ngi moom ñeenti doom mu abandon ne ma bàyyi maag ñaari doomam yoo xam ne dañoo amee dara pono SR ku ñuy wax xadi Guèye jabaru ministre madame madame Khady Guèye Khady Guèye Diouf la tudd mais madame Guèye lañ koy wax jabaru Omar Guèye ministre de pêche moo ma doon jàppale nekk ku ma jàppale man kay bu papaam ñëwee amul sax demal ma ñëw bu papaam ñëwee bis bu ma toppee ñu dem ci yoon fu mu yem neex fu ñu dem si yoon mu récupérer doomam jàppale doomam parce que njàngam man moom a gën a amal importance